Badiane yàgg na ci kaso bi tey mu génn mu ñëw dugg suñu centre de santé bi séquestré ko ànd sa ay nit yu ponkal ni ay mbër mu ne moom mooy ñëw régler le problème de Namora te ñëpp xam nañ ni Namora ar nag du siècle la léegi nag ñun dañu bëggoon xam. ndax état moo ñëw pour régler ce problème la wala Mbadiane moo ko mën a ñëw rek moo ko moo war a ñëw régler parce que abattre nañ suñu arbre yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon mu ñëw waxtuñu loolu mu jël ay engins dugg ci biir cité bi di toj ay terrain yoo xamante ne dañ ko clôturer woon. te on ne va pas laisser faire tey toj nañ benn statut jaay ko ruq-ruqaat yëpp tabax nañ ko mbedd yooyu yëpp fatt nañ ko ñun amatuñ fu ñu jaar. ñun amuñu ndox insécurité bi fu mu toll nii dafa galopé amuñu école élémentaire. amuñu marché suñu centre de santé bi lu yalla xam doyna kenn musul dégg ni que fi amna inondation mais année bi bo moytu dina arriver lutax parce que badian encore ñu ne mom mo ñew défar tali donc mu jël latérite mu déposé ñuko un peu partout ci cité bi suñu kër yépp néna xonku xonk tout le temps ñu ngi nettoyer ça fait 15 ans problème bi mi ngi perdurer ñun nak dañoo sonn monsieur le président de la république Macky Sall da nga ñu promettroon nga ni di nga régler le problème de Namora ñu ngi lay ñaan ci si kattanu yalla en tant que luñu doon moy citoyen du Sénégal nga régler ñu le problème de Namora une bonne fois pour toutes. monsieur le président de la république yaa ni woon da nga bëgg sénégalais yépp am kër ñun avant ngay ñëw lañu ñëw fi xex ba am suñu alal duggal ko fi ba nëgëni si amuñu fu ñu dëkk kon nak dimbali ñu nga geesuñu xamné ay choona lañu nekk ay njaboot lañu ñi ay victime la ñuy nekkuñu fi ñi fi nekk lool daal lañ doon joy ñun wa Namora gépp